li waral daje bi tay moy dañ bëgg euh, a suñ ñak and ci projet redécoupage bi ñu dëgmal bi nga xam dafa jël euh, Ngendouf nar ko commune de euh, Sangalkam té li biko autorité yi décidé waron na am concertation avec la base ce qui n'est pas le cas dañu ñëw jël décision bi sans pour autant que ñu am avis population yi mais bu ñu tàgg je pense que kenn du jël décision bu mel parce que tey mënoo jël Ngendouf mu nekk presque une un quartier ci biir euh, village bu Bambilor bi nga xam ne chef lieu de la commune de Bambilor parce que boo jëlee CDC yi muy commencé Bambilor ñëw ba Ngendouf kon Ngendouf tey presque quartier la ci Bambilor booy dem euh, Sangalkam da ngay jaar euh, biir Bambilor génn Bambilor dugg Sangalkam te tey buñ basé woo ci acte 3 de la décentralisation li mu wax mooy objectif objectif et objectif beaucoup gestion de proximité Madame maanaam euh, maire bi jigéen ay administré Bambilor ak Ngendouf c'est presque un kilomètre et demi distance bi séparé nga jël Sangalkam Sangalkam da ngay jaar euh, Bambilor dem euh, Sangalkam mu presque 7 km, voire plus Quand Ngendouf dafa war rester à Bambilor ñun on se sent bien à Bambilor beneen bi moy tay bo jëlee Ngënduf ak euh, mbey ak wayambam dañoo bok ci programme pôle urbain bu Lac Rose ils ont un programme comme boo xamante ni pôle bi moo gérer tay bo génné Ngënduf ci ci ci ci ci ci ci commune de Bambilor day indi day am ay répercussions par rapport ak programme bobu voilà loolu dal mo nekkoon message bi nga xamanteni ni dañ koy lancer à l'endroit du président de la République pour mu bàyyi ñu Ngënduf. Bambilor. On n'a pas de problème à Bambilor.